Please write it down. Please write it down. Please write it down. Baal ma nga bind ko. Baal ma nga bind ko. Baal ma nga bind Please write it down. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Basuba Basuba Basuba See you tomorrow. See you on Monday. See you on Monday. See you on Monday. Ba altine. Ba altine. Ba altine. See you on Monday. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu I'm sorry. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. damay tooñ rekk damay tooñ rekk damay tooñ rekk I'm just kidding no problem no problem no problem solo amul solo amul solo no problem my English is not very good my English is not very good. My English is not very good. Sama angale dëgërul bu baax nag. Sama angale dëgërul bu baax. bu baax nag. My English is not very good. I want to learn English. I want to learn English. I want to learn English. Dama bëgga jàng angale. Dama bëgga jàng angale. Dama bëgga jàng angale. I want to learn English. How much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? ñaata lay jar. ñaata lay jar ñaata lay jar how much does it cost do you have money do you have money do you have money ndax am nga xaalis ndax am nga xaalis wala ndax yor nga xaalis ndax yor nga xaalis do you have money it is over here It is over here. It is over here. Moo ngi fii. Moo ngi fii. Moo ngi fii. It is over here. It is over there. It is over there. It is over there. Moo ngi fee. Moo ngi fële. Moo ngi fee wala moo ngi fële. It is over there. What is this? What is this? What is this? Lii lan la. Lii lan la. Lii lan la. What is over? What is this? What is that? What is that? What is that? Loolu lan la. Loolu lan la. Loolu lan la. What is that? What did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? Lan nga def démb? Lan nga def démb? Ben lan nga defoon démb? What did you do What did you do yesterday? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? lan ngay def suba lan ngay def suba lan ngay def suba suba looy def what are you going to do tomorrow do you like tea do you like tea ndax bëgg nga ataaya ndax bëgg nga ataaya ndax bëgg nga ataaya do you like tea I was at home. I was at home. I was at home. maa ngi woon ca kër ga. maa ngi woon ca kër ga. maa ngi woon ca kër ga. I was at home. Send me a message. Send me a message. Send me a message. yónnee ma bataaxel yónnee ma ab bataaxel yónnee ma ab bataaxel send me a message